mbokk interview yi ñoo ngi euh, donc ak Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye am question yu xamante ne bëgg nañ ko poser surtout si Coupe d'Afrique mais tout d'abord dañ koy nuyu euh, noo def Abdoulaye. Mohamed maa lay ziar bu baax a baax maa lay nuyu di la jox sa mm-hmm. a mm-hmm. xam nga mais loolu mais tey moom bëggal naa la may la maaya bi. mooy bi rafet na trop franchement moom. maa ngi moom dañoo yàgg nag c'est depuis deux mille vingt et un donc man man opportunité la tey jii nii ma am contentement balaa may jël benn jour ma jël ko quoi. parce que en deux mille vingt et dama ko waxoon liggéeyal ba ñëw équipe nationale du Sénégal tey ma toog moom fii donc loolu bonheur bu bu rëy la ci man mais tout d'abord instant yi forme bi bëgg nañu xam ban Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye ban forme la la am actuellement nii. bon Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye pratiquement joué nañ ci mois championnat bi. Mhm. te pratiquement match yooyu la ñu joué. te j'avoue que ça fait une semaine que que maa ngi vacances ñu toog ma tamit. ñu continuer di liggéey. ñu ñëwaat fii tamit bon entamé waat liggéey bi. yaakaar naa ne jot nga si gis tuuti. waaw si ça rigole pas quoi. ñu liggéey bu baax a baax di waajal kan bu baax a baax comme comme ni ñu ko war a waajal quoi. Mhm. état de forme bi. du ma wax man kese bi yëpp quoi. ñëpp ñu ngi suñu malgré liggéey bi jeexagul. mais ñu a baax. foo ko jàpp loolu moom. léegi xam comment ça se a intégré si am sax mbégte quoi gars bi ñu toogee télé bi rek ñu seen biir ñu xam. baax ñoo fi gars yi yàgg ñu ñëwee dañ ñoo dalal comme suñu suñu quoi duñu seen bopp buñu bëggee waxtaan buñu bëgg a laaj indi ñu seen bopp ñu conseillé ñu franchement mbégte laa si am un contentement laa si am def parmi eux quoi au niveau de ton club 3 xam nga donc gis naa ren jii dañuy jox sax capitaine ñu dañ la gën a responsabilisé comment se passe euh, au niveau de deuxième division France ak confiance bi trois am ci lu jox yow capitaine et tout noo ko dundee. bon ñun moom tout le temps fépp fu ñu dem dañuy wane suñu wane suñu leadership. Ligue 2 bi mooy sama deuxième saison. waaw gis naa ko. parce que ndax sama saison boo ko def. après bon saison bi amoon nañu opportunité yu bëri. Mm-hmm. dama ne c'était ma première saison professionnelle. Et les de pour sama deuxième saison gën a jëlaat expérience loolu moom daa am yoon quoi ñu nar a tëpp ay étape parce que naag après bon capitaine moom confiance bu coach am si suuf rek li ma la sama seen la calme bi ma wane la ndax tey dafa nekk suñu bëggoon ñaan yàlla kontaan naa si yow am ak interview bi dernière question bi rek mooy par rapport ak pour pour de la mode bi ñu nekk et tout voilà groupe bi et tout que pare ngeen carrément pour ngeen dugg ci groupe boobu xamante ne Sénégal yëpp ñu ngi commencé ragal par rapport ak blessure yi ñu am ak yëpp euh, jàpp nga ne groupe war nañ ci mën a génn sans problème wala ay ñaan ngeen mën a soxla jamono bi loolu lañ gën a soxla jamono bi si Sénégalais yi ban message ngeen leen mën a envoyé ba suñu xel dara solo Sénégal xam ne comme équipe bu ñu liggéey comme noonu la ñu ñu préparé kan bu baax te en plus yoruñu ay joueurs yoo xam ne ci ñoom dañu ko sori ñëpp am na ay cas yu ñu ko nekk gars yi ñenn ñi gis nga seen troisième cas ñenn ñi quatrième ñi gars yi ñu ngi dalal ñu ngi ñu si liggéey bi te incha allah pour soobee yàlla mode active maa ngi ko wuti ndam bi ñu koy activé waat dem jëndi waat quelque bi incha allah parce que am nañu arme yu nekk xamante ne gis nañ ko yàlla baax na ko soxla nañ tamit seen ñaan franchement di wax Sénégalais yëpp ñu ñaanal équipe bi ñëw dès lundi bu ngeewaat ñu bind fii tàggatoo ak ñoom ñu mën a ñëw pour vaar ñoom ñu mun a ñëw mun nañ tam di ñaanal équipe bu baax a baax kontaan yow bu baax a baax franchement. sama mayo ba des ñaanal la ndam rek nga andil coupe bi quoi. incha allah merci. waaw jox sa mooy da lay tooñ quoi. <laughs>